mu mel ne mi ngi jóge ci kenn ci jaamam ñi nga xam ne daa amoon aw ci aw loosam lu mu fi doon dox su leen fekkee ci lam leen war a fekk mu soññi leen ca su leen ca fekkut mu jëm leen ca yóbbu te toogloo leen fa am ca jaamam ñoo ku bokk ku ñuy wax Seydina Ibrahima alayhi salaam bokk ca dëkk ci ëpp dëkk di fa dund pas-pasam ba mu yàgg ba siiw mu wéet ca lool yemut ca wéetaay wa waaye ay fexekat fexeel ko ba génne ko dëkk ba cig tënk ndax la muy wax ak lañ xamoon lu benn jooju tuuma rek lañ ko tuumaaw yàlla jaarale ko ci ay nattu yu metti yoo xam ne benn bu ci nekk doy na sëkk waxtaane bisub lëmm suñu boroom ne fa basharnaahu bi gulaamin xaliim yàlla dogal nag ca dogalam ba mu may ko doom fekk mag na lool ca ay at yàlla dogal ba mu demee ba tàmbalee looy looy tuuti suñu boroom digal ko mu rendi ko ci gént fa lamma balaga maahu saaya mooy dem na ba di looy looy mu gént yàlla ne ko rendi ko foofu nag lañ fay gën a jàngate mooy ku am njaboot na nga dund ak ñoom ci melokaan woo xam ne euh, loo leen wax danañ ko gëm looleen wax ñu gëm ko mu xëy woo ko boo doomam jooju ne ko yàlla ne naa la rendi daa fekk lu ko mës a wax rek dëgg la ñu dégg ci ne ku am njaboot ak nu leen mën a jaboote na sàmmonteeg kàddoom sàmmonteeg melokaanam sàmmonteeg ay jëfam musu ko wax lu amul musu ko wax lu dañ lu ko ci tegal euh, texte bi mooy qaala ya bunay inni ara fi anni azbahuka fanzur maza tara demal nga waxtaan ak sa njegeñaay ba xam loolu noo ko gisee mu ne ko waxtaan naa ak sama njegeñaay ba noppi ndax loo ma mas a wax teg naa ci sama bët te musuma gis nga jëf loo xam ne bokkut ak lu ñu naan do yaa abati ifal ma tumar sa tajiduni insha allahu min assabirin waxtaan naa ak sama njegeñaay ba noppi mooy defal li la sura borom digal ci ma mu diisoo ak soxnaam mu defal ci sa doom ji li la yàlla digal ci moom loolu nag buy ñëw ko ñëwaat waris nay fàttaliku ne doom ju nekk yaway doomi sayidna ibrahima jooje waaye ku yilif njaboot ku nekkit yaway sayidna ibrahima ca jamono yooyee ci pas-pas ci settantal loola bokk yi mooy waral bisub tabaski bam démé ba wara jëfëndiko nak ndigalu suñu borom lool ci la ko suñu borom jël jëlal domam tegal ko ne wattee ko am qaf falamma aslama wa tallahu lil jabini wa nadaynahu an ya ibrahim qad sadaqta qad sadaqta ruya inna kadhalika najzi al muhsinina in hadha la huwa al balaa al mubin mbokk yi kuy naxe njabotam gu ndaw bëgg ñu tite saa su nekk mu naan leen gaynde gaa ngi ñëw wala ñay waa ngi ñëw bu yàggee dana xam ne gaynde du ñëw te ñay du ñëw ndax bu gaynde bu bu gëne gi demee ba xam ne ba xam kay gaynde mooy kan dana xam ne bu gaynde gi ñëw du ko ko wax la kilifa àndoon akuk njabootam def lay def koo xam ne daa ànd akuk njabootam ñi yom yom mi ba yàgg ñu ne ticcët ci gaynde googu ma doon wax njaboot képp ne ci ginnaawam yaakaar ko kenn ci ñi ko jege ne ko waaw yaay kilifa gi de fi ñu toll nii tembe lenn lañ am ci lu ñu lay laabiire mooy nga daw mu ne insha allah daal di fëx ñu topp ko foofu liñ ñu fi jàngate mooy mi ngi ñëw mi ngi ñëw joo xam ne <clears throat> xam nga ne bu ñëwee dana fa fekk yow da ngay daw ni ñoom loolu des ci jàngate wax dëgg njaboot dañ leen di wax dëgg tey def ci seen kanam loo xam ne loxo du yóbbu du dem gémmiñ ko ci jóg sëriñ bi nag nee na nun ñi ñëpp dañoo am kilifa goo xam ne e, ku ko xam te nekkoon feneen it danga nga ne woon géej xam ko ndax kenn du ko xam di ko bañ eh, ay soppe la am ak ñi ko bëgg ak ñi ko gëm te kenn ku ci nekk la ko ca bàyyi moo ca bàyyi moroom nee na ku am kilifa gu mat kilifa muy as cheikhul xadim da nga ko naan nankutum téyeeku ak say yox soo su la ci say yoxo doyut nga génn ci mbedd mi xool ku yor yoxo yoo xam ne doywu ko dara mu abal la ko nga téyeeku ci xam ne kat yi wër yëpp e, di taxawaalu luy taxawaalu la ñuy wër wala koy taxawaalu ndax ki jël gànnaay jëm ci àll bi di wuti naat naat yi na ci dëkk bi taxu ko jóg ndax xam ne naat gu ne mi ngi ci ay yoxo naat yi ko tax jóg mooy naat yoo xam ne ci àll bi la nekk nekku ci yoxoy kenn ku dul loxoy yàlla moom itam mu ne ci loxo yàlla te yàlla daganal mu jëfandikoo leen dañuy wax sax ba ne rab yi nga xam ne dañoo nekk ci àll bi ku ci mel ne eh, kéwal ku ko seen ci àll bi te am ci ndigal sañ nga ko teg bal mu daanu nga fekk ko waaye bu fekkee da koo fekk ci dëkk bi bëgg koo jàpp ci si biir kër soo ko tegee bal ba mu ne këpp it doo ko sañee jëfandikoo la ko waral mooy kii daani ci yoxo te kay néewut ci ay yoxo ki ne ci ay yoxo am na fu ñuy jaar ak moom waaye ki ne ci nekku ci loxo it am na fu ñuy jaar ak moom kon yàlla na nu yàlla yàggal ci loxo yañu war a nekk te saxal ñu ca te xooloo ñu ko te bañ ñoo xooloo leneen te moom it suñu borom bàyyil na ko fii moo ay kilifaam ñoom ñëpp ndax damay faral di wax ne ñu yomba àndal lañu koo xam ne na ko sëriñ Saalihu Mbakke radiallahu anhu waxe woon ku koy dox rek faw sak njaboot dañ la xool te dañ la topp soo jiitoo dox doxin wu yem wuñ la mën a toppe boo leen rawee taxaw néeg leen buñ ñëwut nga wàññi ko xool leen lu leen te ñëw yàlla na ko yàlla fay moom si Serigne Saliou njàngale mu rëy la kon kàddu yooyu la sëñ bi waxoon nañ ko jottali fu waay mën a bàyyi ko yàlla na nga àggat ci jàmm